yaa booy ginnaaw ba ñu la nuyoo ñu bàyyi la nga nuyoog mbokku internet présenté waalew ñi nga xam ne ñooy seetaan site bi di wasaare société. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. man la Adja Ndeye Ndiaye Diouf bàjjenu Araf goxu Arafat 5 maa ngi leen di nuyu di leen fay di leen ñaanal jàmm ak tawféex fas yéenee dugg ak yéen ci sunu gox bu yi nga xam ni gox bu garaaw a garaaw la. tey dañu ñëw fi nga xamante ni moo di Grand Yoff seet si leen li ñuy waxtaanee nag nekk li nga xamante ni moo di agression yi ñu bëggoon xam rek mbir yi naka lay demee fii exactement. fii mooy Arafat Cinq fii la Sanzala nekk Arafat Cinq la la tudd mais bandi yee ko tuddee Sanzala à cinq mètres d'ici. boo boo jàddee koñ bi rek bu ngeen taxawee léegi ma joxal leen bandi léegi police baa ngi nii. jege fi ba bëgg a dee buñ leen jàppee dix minutes nga gis ñu indiwaat ñu ñëwaat ñëw toog sa loolu jaaxal nañu bi suul yàmbaa ci kër yi buntu kër nit ñi di ko suul ci koñ bi di suul ay jaasi di def pain jaasi waaw di agressé nag timis la ñuy commencé agressé. la ñuy commencé. waaw timis yenn saa yi six heures la ñuy commencé agressé ci borom oto yi mais guddi fii six heures du matin dañuy agressé sept heures du matin dañuy agressé ay jaasi la ñuy yore pain jaasi lañ ko tuddee. di agressé fii ci kaw tali bii ak di koñ bii di fi agressé ba ba ba deux voies liberté agressé dina fa la ñu dem fii yëpp ba Sacré Cœur parce que ils sont nombreux fi mu ne boo toogee fii boo leen wàññee cinquante personnes ngi toog fii ci gannaaw tey agresseur lan mën naa leen dem ñu ne ñu ngi nii léegi nii weddi boo gis gis bokk ci. police bu leen jëlee du am cinq minutes mu ñëw delloo si la waat leen fii ñu nekkoon. loolu da ngeen dem interroger waa police. parce que loolu ñun noo jaaxal man damaa dem police ba sonn léegi damaa bàyyi parce que gisuma benn lu ñu ci def buñ leen jàppee nga gis oto bi ramasse leen du yàgg nga gisaat ñu ñëw même figure yi ngay gis ñu toog fii di agressé nit ñi di fi jaay yàmba di fi def yëpp fii daal moom ah dan fee am ay kër dëkk fi waaye bu ñu soñoon sox jóge fi amul benn sécurité ñu ngi wax berte ak yëpp di jaar fi naan kaar yeeg yooyu bu ñu sécurité wul fii koñ bi fii dara du fi dox te am mais damay for yenn saa yi ci weewu bay ñu ne ñi nga xamante ni dañuy agressé Grand Yoff fii dëkkuñu fi yenn saa yi dañ fiy romb rek. am na ñu fi dëkk mais ñu fi dëkkul la ëpp man fii am naa fi 27 ans ku fi dëkk xam naa ko ku fi dëkkul xam naa am na ñu fi dëkk waaye fii lañ def seen réseau waa Grand Dakar waa Parcelles waa waa waa Géejawaay waa yëpp seen réseau ngi nii réseau bu mag bi daal fii la ne ñu tuddee ko Sanzala nga ca Amérique moom lañ ko tuddee nekk fi di def n'importe quoi te police bi nag soriw fi. ñun poste de police la ñu amoon léegi police la ñu am foire ngi ni gendarmerie yaa ngi jege ba jëg bëgg a dee mais dara def nu ko ci man gisuma luñ ci def daal man gisuma ko. police deful liggéeyam est-ce que yéen askan bi nga xamante ni yéen a yeewoo Grand Yoff fii yéen a ngi def euh, maanaam seen kéemtalaay kattan pour ñoom ñu mën fee jóge wala. def nañ suñ kéemtalaay kattan am na réunion bu ñu fi defoon man ak notable yi nekk fii. mais ñi nga xam ne man dama am ay doom yu góor ay ponkali doom yu góor yebuñu ma waaye ñu ne yëpp danoo dem ci seen buntu kër di leen saaka yore seen i jaasi di leen menacer ñu gaa yi ragal dellu gannaaw xam nga loolu tam lu dara wax la waaw dëkk bi amul benn sécurité bu bu nu ndaxante tali yi ñuy defar baax na yëpp baax na mais sécuriser nit ñi ba nu mën di yore seen alal di dox sécuriser nit ñi ba bu ñu tëddee nelaw sécuriser nit ñi ba koy liggéey kenn du la agressé loolu la ñu bëgg te amu fi. d'accord tey naka ngeen koy dundee yéen ñi nga xamante ni yéen a yeewoo Grand Yoff parce que tey boo waxee Grand Yoff ñëpp naan la agression bu foofu la ëppee defkatu te yi foofu la ëppee am nañu si bëri ñoo xamante nii sax ñemeetuñu ñëw Grand Yoff waaw boobu loolu lépp ci sunu police bi la rek ak sunu sunu sunu njiiti état bi c'est l'état parce que su defoon li mu war a def bandi yi warul leen a mën a të su liggéey bi jaaru yoon bandi yi duñ leen mën a të xaw ma yaa xaw ma lu ne ci biir mais bu nu defoon lu nu war a def bandi yi duñ leen të parce que ay xale yu dix huit ans dix neuf ans vingt ans ñi ci gën a mag ay vingt cinq ans la ñu am ñooñu ay xale lañu seize ans dix sept ans dix huit ans dix neuf ans vingt ans ñoo fi agressé ay xale lañu du ñuy mag waru leen a mën a tax kenn du wax kon bii kenn du wax. man de man rek maa fi wax keneen du wax man daal liñ koor bi mooy wax keneen du wax ndax ndax dañ leen a ragal waaw. ah loolu de gëw ma ko parce que ñoom suñuy dund seen dund daal ku leen bàyyi fee romb leen dem seen yoon man dama leen di romb sax nuyu leen salaamaaleykum ndax ay jigéen dama leen jur comme man su ma sañoon du nu mel noonu ah. te te man xaw mu leen def agressé ndax boo leen rombee wala nga dem fenn ñëw sax yore lu diis dañ koy jël indil la man daal saam man jaaxle naa man man damaa jaaxle. waaw ba pare ñii koñ bi nag def ñu leen dara ñoom ku ñu xamul la ne agressé mais ku dëkk ak ñoom duñ ko agressé. ndax man damay dem ay xew di ñëw ay des heures ay une heure yëpp de romb ni yenn saa yi ñooy téye sama bagage ku leen jàppale woon xam nga lan la chômage bi la xale yi liggéeyinu fi ñu doon liggéey di jaay di lal nangu nañ ko dañ leen a bàyyi woon ñuy jaay ci mbedd yi agression bi wàññi ko waaye ba ñu commencé yàq seen place yi la agression bi ñëwaat yokk amuñu fu ñu liggéey amuñu usine amuñu dara ngay gis koo xam day yow kër ndey ak baayam du añ du du ndékki nu muy def dañ leen a wut a wutal bu même bu ñu leen wutal leen ay tool ñuy bay ñu wutal leen ay usines ñuy liggéey agression bi wàññi ko mais bu liggéey amul nu agression di wàññi ko ah yoruñu ay xol yu bon de yoruñu ay xol yu bon mais daal ñàkk liggéey bi moo indi lii man maa la ko wax. message booy laasay jëmale ko ci askan bi wala yenn ci parents yi ban message lay doon. parents yi xanaa ñun ñëpp ci yem parents yi xanaa ñu gën a téye seen doom sàmm leen rek. gën cee jox ndax man ñi ma fi gis ñëpp danoo sonn seen doom dangay gis ku ñëw fii di du doomi baa doole yi rek de doomi ku nekk a ngi ci nag. doomi avocat yaa ngi ci agresseurs yi doomi directeur yi service yaa ngi ci agresseurs yi agresseurs yi du doomi baa doole yi rek nag ma xamal la ko tey ndax n'importe quel nit moo fi ñëw gaare otoom di wër doomam. pour jël si ko pour jël si ko. bu ko séenee daw wala bu ko jëlee bu yàggee mu ñëwaat kon loolu du doom mu baa doole yi de doomi ñëpp la. maa la wax lii man. kàddu gu mujj gi lan lay doon. xanaa di ñaaxaat gouvernement bi di ko xamal ni tali bii mu def fii kaar yi nar fee daw bu amul sécurité dara du sotti bu amul sécurité lamp yi dañ ko toj bu amul sécurité tali bii ñuy def nii weñ yi dañ koy buddi di yóbbu bu ko amul sécurité dinañ buddi seen raakoor yi yóbbu ko te bu amul sécurité nit ñuy dugg ci kaar yi dinañ leen agressé. ndax bu kaar bi ralantee war a taxaw mën na noo dugg ñeent fee ñeent fee agressé lu gaaw gaaw cinq minutes agressé nañ kaar bi yëpp te te sécurité boobu am fi yow yow état ci dëkkam dafa war a xool sécurité doomi aadama yi bakkani doomi aada yi aadama yi bii ci guddi si agressé nañ fee waa ji yuuxu ay ay six ndax day fekk may yow di julli waaw kon nag loolu war naa mën a ñàkk dafa doon liggéey di dem ñu agressé ko mu yuuxu ma taxaw ci fenêtre bi di ko gis ñu jël portable am heureusement jamuñu ko ndax nit ñi danoo gaaw génn mais loolu bari na fii fii def nañ fi lu ne lu ne daj na def nañ ko fi nit waaw léegi nag état bi moom moom moo war a sécuriser ay nitam te te man gisuma sécurité boobu. waaw parce que police boo xam bi man damay tukki dem naa fu ne ci àddina mais police foo dem ci àddina da ngay gis police yi di dox di dem ko ñëw fii suñu police six heures kenn du ko gisate xanaa police guddi bokk ci xanaa gendarmerie guddi bokku ci kenn du ko gis fii tali bii fii ba liberté si doo fi gis benn police bu pointé. Liberté 6 ba Dakar doo fi gis police police yi guddi amul gendarme guddi amul kon nu ñuy jàppee sàcc guddi ak nu ñuy jàppee agresseur guddi ah dëkk yi boo dem bu dul Sénégal gi guddi da ngay gis ñuy monter guddi ak ñuy monter suba effectif police moo doyul effectif gendarmerie doyul moo tax agression bi bari voilà jeex na. merci beaucoup maman kàddu yi rafet nañ kontaan nañ bu baax a baax. maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw di leen ñaanal jàmm. di ñaana xale yi di agressé yàlla nañ ci yàlla génne parce que du ñuy xale yi soxor du ñu bon liggéey amul liggéey bi dafa war a bari buñ ko côté bu ne mën nañ faa jaar pour xale yi liggéey dañ koo deful waaw loolu daal laay wax agression bi nag du doomi baadoolo yi doomi ñëpp a ngi ci biir wasalaam